Why you don't see you long time Sénégal Papa Ndiaye Seydina Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla na jàmm yàgg ci àdduna bi yëpp yàlla na jàmm yàgg ci senegal di gërëm Papa El Hadj di gërëm Yaay ma Ndiaye di gërëm 2STV yi gars yi ma àndal yëpp waaye tey fi ma teew sama copain ngi nii teg caayin bi yëkkatal ma sa sa sa palaat ma xool ni nga defee say bagages tey fii mooy temple du savoir fii mooy temple du savoir liñ fi war a xamee dafa bari waaye tey du yomb ndax tey ku nekk Kolda mbaa nga nekk Ziguinchor mbaa nga nekk Diourbel mbaa nga nekk Fatick mbaa nga nekk Thiès mbaa nga nekk Mbour foo mën di nekk ci Sénégal boo ma woowee ci numéro commercial bu 2S nii laay ñëwee ñu teg caayin bi affaire bi méttiwul loo am ma jaay la nga def en direct wax li la saf ak ko mënti doon monsieur le maire président de la république feccikat waykat dóorkat boutique sama yoon newu ci loolu lijjantiwu ma ko sax dama ne loo mënti yor ma jaay la en direct nga def ba mu baax waaye Modou Baye waaye ragal gàttal gàttal way sama da na loxoy daje ay ay na loxo yi daje waaw waaw na loxo yi daje waa Papa na loxo yi daje waa Ndiaye na loxo yi daje ay waaw waaw waaw waaw bëgg naa di ah, euh, on oh, nice on oh, nice alhamdulilah ñu ngi ci Medina ni ma la ko waxee loo soxla ñëwal waaye xam ngeen ne émission bi du man kese maa koy def xam ngeen ne dama ci ànd ak Jimbo ci ànd ak Timmasi a xorom kookoy kan cecebere e cecebere loo indaale wax ma loo indaale wax ma loo indaale del waaw kay nag njaay del diw njaay fi toll ni seetaay lañ ne te del diw dëgg du neex sama waa ji weex na torop day weex na torop waaye nuyu naa leen yéen ñi nga xam ne yéen nañu fekk fii nga xam ne mooy suñu plateau waaye du nuyu njaay li ko sargal ni mu ubbee neex nañu dëgg du neex tiim euh, na neex nii lay demee saa su nekk waaye ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy téléspectateur toog seetaan di jéggalu ci li nga xam ne mooy retard bi waaye bëggulu lu baax bëgg lu neex rek moo ñu tax a tardé moo tax lépp rek pour bëggal leen waaye du nuy kilifa diine kilifa aada yi ñoom di sàkk ci ñoom di ñaan bu baax a baax a baax a baax di nuy ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi ah yàlla na yàlla fëgg seen bopp waaye ñi caabi féete ginnaaw bi tubaarkàlla yàlla ñu yàlla yàlla na leen yàlla may liberté bañ waat li nga xam ne mooy euh, ci ci seen njaboot rek dëgg neex waaye jéeg bi tey na neex dafa dafa dem fi nga xam ne mooy Médina te bu ñu nee Medina wax Fass Gueule Tapée. te ku ne Medina wax gox boo xam ne ñëpp a fi bëgg dëkk. dëkk bu neex Medina mu nekk lu neex. nekk euh, dëkkuwaayu jeune surtout. waaye dëkkuwaayu femme boo ñëwee doo xamee mag doo xamee ndaw. tey nag ñi ngi biir 33 dëkk du neex waaye bu ñu nee Medina sa xel day dem ci l'enfant chéri de la Médina. mooy xale boobu nga xam ne mooy waajal le 24 décembre incha allah fële sa grand théâtre neewoon nañ ko ci émission na neex lu la teree jël grand théâtre fa lañ mayee fit ba mu jël grand ñoo ko yokk fit te macha allah dugg nañ ci décembre ñuy waajal li nga xam mooy événement bi dëgg la ay jeeg bi waaw ah tubaarkàlla la 2STV bi dafa décentraliser li nga xam ne mooy émission na neex ku ne xam ne ni semaine bi passé ñu ngi nekkoon si plaza dëgg du neex waaye ñu ngi Médina mais damay wax rek ñii xam ne ñoo toog di ñu seetaan fu ñu mënti nekk ci réew mi bàyyiwuñu benn région nag bàyyiwuñu Ndar Mauritanie Gambie fu ñu mënti woo rek dëgg la euh, allah dëggal dama laa namm ci loolu daal di ñëw def leen émission bu ne mut ah, ah, daanaka ñu ngi leen di gagné de Sofia. dëgg la fi toll nii nañu woote ci commercial bi rek. ak foo leen mënti nekk Kaolack foo mënti nekk Saint-Louis foo leen mënti nekk ñu fekk leen fa kon woote leen ci commercial fa ñu ngi suñu papa Alaaji Ndiaye suñu yaay Marème Ndiaye mi nga xam ne tubaarkàlla moo ñu sponsorisé neexiree moo ñu génnee 2S ñuy fulaale def lu ñu saf commercial baa ngi noonu woote leen ci ñu fekk fekk leen fi ngeen nekk ñu sàjjeeg yéen lu am doole di sàjjeeg yéen lu am jom naan leen émission na neex foo leen nekk foo leen nekk rek boo leen ñu wootee ñu fekk leen fa sàjjeeg yéen émission bu amul fenn la waa Baye Tama loolu am na solo loolu am na solo loolu am na solo eh, waaw ñu ngi gis nga ñu ngi fi nga xam ni mm-hmm. mooy Medina précisément ci 33 waaye dama lay bàyyi rek nga daal di doxal dëgg du neex. non balaa maa ñëw du ma ñëwee noonu joxal ma kenn micro bu ànd ak Modou Mbaye ñëwaat. waa gis nga waa kon na neex kon Ndiaye mi ngi ñëw moom lañ jox mi kon mu daal di wiiri ñëwaat. waa dellul si man Modou Mbaye dellul si man waa dellul si man Mbaye dellul si man. waaw waaw waaw waaw waaw waaw. ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw waaw fooni yow fooni waaw waaw ndeysaan fooni yow fooni yow fooni fii nag mooy ri ri 1 ri 49 non kon xaaral xaaral joxal ma micro bi jëlal non taxawal joxal ma kii micro sa waay non fii 31 la fii 31 la fii mooy ban rii non fii 31 la fii 31 la non par kenn par kenn fii fan la fii 31 la joxal ma kee pa fii 31 angle 2 bis la bu wax 31 31 ngay wax 31 31 kon fii rii 31 joxal ma sa waay Modou Mbaye joxal ma sa waay joxal ma sa waay sa waay fii ban rii la 34 man kii laa bëgg man man yow laa bëgg sa waay fii fan la 33 la 33 kii dafa juum di temple la. c'est rii di temple. il faut oser de parler. temple savoir mais temple du savoir. boulevard waaw waaw kon ngi ci boulevard. waaw boulevard temple du savoir laay fii nag. waaw waa Ndiaye nee na la fii mooy temple du loolu nag bu ngeen ko déggee xam ngeen ni duma ci wet. Modou Mbaye na la dëkkal sa tama ci ginnaaw ma am commune kii xolo sama liggéey moo ma ndengeeñ moo tax may dang moo tax may ndengeeñ moo tax may sama liggéey moo ma ndengeeñ moo ñu nekk moo tax may dang dang moo ñu sama liggéey moo ma ndengeeñ moo la ndengeeñ moo tax may dang dang da ngeen may ma ndengeeñ xaar leen ma ma dang dang xaar leen ma sama sama ñëw sama liggéey ma ndengeeñ macha allah gis ngeen li nga xam ni ma Papa moom lay def ma ngay def lu ko neex ma ngay def lu ko neex ci mbedd bi boo koy jaay li <laughs> toll ni daal dugg neex maytul oto yi doom nday maytul oto yi nen day arrêté policier <laughs> dañ laa bëgg maytul oto yi pardon maytul oto yi Parcelles Médina <laughs> <laughs> oui loolu ëpp na. macha allah macha allah macha allah. de salaire carte de naissance carte de mariage. soxla woo baal naa kon demal man damay baale policiers yi dee baale na neex hélas sama liggéey ma ndey moo tax may dang-dang ah bëggee naa ko mon frère de cœur. borom Medina. mon ami de valeur borom Sénégal. mon ami de valeur borom parcelle. mon ami de valeur borom Géejawaay. dafa leer yar. waaw yow kenn du naa la ziar naa la tey maa ngi fii. yaa ngi yaa ngi ñëw Medina seet si ma macha taxaw ni sama frère. kan la Cheikh muy sama frère. waaw muy sama frère yàgg ma jàppale ci lépp ñu taxaw ni doon waxtaan ndax maa bett de tey yow daal yi ngay def dama doon waaj a génn dama doon waaj a génn nii de nga bett ma relax bett ma de dama doon génn de ah, da nga waaw waaye tey dama lay ndege ndax li ah. am solo ba am solo mooy dangaa ñëw sama yëf ma lay ruube man tax naa man Papa Ndiaye tax naa te sama làmmiñ am na barke waaw macha allah dama la ne nii ngay rombee grand théâtre rek yàlla ñëw dëgg yàlla ñu. yàlla nga rombee noonu. Bercy pardon amiin amiin yàlla nga rombee noonu Zénith. amiin amiin Wembley. amiin parce que pardon li ma gën a daaneel ci yow mooy lii. lii dafa baax. dafa am solo. man lépp lu may gën a daaneel ci doomu aadama mooy simplicité. te Medina loolu lañ la xamee. àdduna bi lool lañ la xamee ba tax ñu teew fi tey mais su date bi waxaat ñu ko ñu doog a xam nag. le 24 décembre la benn date la une seule date à retenir le 24 décembre. c'est la fête. dimbali ñu nag xam nga non 24 décembre 24 décembre léegi dañ doon na dañ dem fu ne di xatloo xat-xatloo di ñàkk suñu yëre yu bees ak suñu daal yi di yàqu mais léegi da ngay ànd kala saf ka bëgg sa xol dend ak moom jàkkaarloog El Hadj mu naan la vaax sama liggéey ma ndengeen moo tax maay daan xoolal borom sama borom café gi xoolal sama borom café gi. non téeméer téeméer jox mu. waaw non ko joxal defaral ma benn noo tudd yow joxal ma ko micro bi. am noo tudd. noo tudd laa la oh, gi neex na Amadou Amadou café Amadou café ah gars yi maa ngi téye sama café Amadou ma sama café ma ñëw ñu delluwaat suñu place jàkkaarloog waa Medina El Hadj Keita a dama ne yéen ñi jàpp Sénégal na neex yéen ñi jàpp 2S na neex 2S day gën di neex ndax El a ngi ñëw Bongo yaa ngi ñëw Sabar yaa ngi ñëw waaye boo ma soxlaa bëgg li El Hadj Keita am ak koo mënti wooteel commercial 2S ma bëggale la nii ñëw sa koñ moo xam loo mënti def wooteel commercial bi ma defal la lii teg naan ataaya waxtaan ñu na neex lañ wax préparé leen ngeen préparé seen événement ak koo mënti doon artiste boo mën a doon Youssou Ndour ba ci Thione Seck ba ci Ouzin Keita ma waat sama vaar seet samay affaire xaaral ma seeti vaar on y va on va chercher vaar moo ci ma on va chercher waa Papa Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow ku la gis xam ne tey moom tubaarkàlla da nga ànd ak détermination waaye énergie tamit danga ànd ak moom dëgg du neex. waaye ba tey di rappeler télé téléspectateurs yi nga xam ne ñooy toog du ñu seetaan ñu ngi fi nga xam ni mooy euh, au cœur de la Médina fi nga xam ne mooy 33 nee naa leen saa su nekk ñun émission na neex fu ngeen ñu gisul fu nekk rek dañuy jaar fa ca des ba tax na émission bi dañ ko jël décentraliser ko tey Médina ñoo aye nee naa leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk euh, réew mi wala ci bitim pourquoi pas ngeen wooñu rek ñu daal di ñëw def déplacement dëgg du neex indil leen équipe euh, de 2STV ngeen daal di ñëw rek dund li nga xam ne mooy ambiance su na neex ah waa la mi ngi noonu am ah, waaye tamit nag nee naa leen li fi li ñu fi tax a gën a indi mooy émission bi euh, macha allah Ndiaye Ndiaye Ndiaye da nga toog dangay mujj daal di toog rek dëgg du neex <laughs> Ndiaye toogal. Ndiaye toogal. ndaay fi ñu toll nii euh, sa yaram dafa tàng te il faut nga toog weex nga taal jëndal diw wala ñibbi tey naal jëndal diw <laughs> ah, <laughs> kookoy l'artiste dëgg du neex ayca ayca ayca ayca ayca waaw koy papi papi grand cadre waaw Njaay lu la jaral gàcce yaa ko bëgg def ko sa doom def ko sa jigéen lëmbalu tubaab yi ngeen lëmbal. pourtant nag boo bëggee dégg-dégg. ma daañu daañu daañu daañu. yàlla xam na ni góorlu naa ci lëmbal yi ndax fi ñu toll ni moom damaa dugg euh, cours de danse yi nga may jox ak yi may jox ci yeneen ci suuf. mais Ndiaye xanaa tanew ma de li nga nekk Medina moo tax tey ni nga àndal. daa yëngatu bi waaw tey damaa def yëfu jeeg tey damaa jëmbang rek sàjji. waaw yooyu laay def ak yeneen suur ak ay surprise lañ leen yéeneel ak émission na neex. dëgg tollul noonu di leen fàttali ne ñoo ngi fii ci Medina comme d'habitude il est là. El Hadj Keita xale ba nga xam ne moo waaj le 24 décembre fële ca Grand Théâtre du yomb incha allah réew mépp nga koy waaj Sofia waaw waaw kookoy El Hadj Keita waaw kon buy waaj bés ñëw fekk fi nga xam mm-hmm. nga la fekk yaa ngi toog Médina waaw Médina gi lay dund mm-hmm. maanaam ku ko amul doon garab <laughs> Medina gi lay dund normal. ayca waaw yëfu mbedd la moom. Mhm. ak El Hadj Tama ñetti El allah Ndiaye ñetti El Hadj Ango waaye elage bi ñu tax a jóg muy El Hadj Keita la le 4 décembre naa la émission na neex nga amee fitu jël grand théâtre dëgg du neex te di nga ci am ndam parce que da nga baax li nga def nii rek yëfu booy yëfu booy Medina la ndax jaayoo star benn yoon sa simplicité moo la may lii nga xam ni moom nga doon tubaarkaal yàlla macha allah tey nag El Hadj Keita macha allah lañ seet si biir Medina nee leen li nga xam ne mooy émission na neex dañ koy décentraliser tey nag El Hadj moom mi nga xam ne mooy waajal bés bu rëy muy première édition Grand Théâtre ñu dem Vaar xooli Vaar lu nekk Vaar ah? moom moo ñu war a woon lu nekk Vaar da nga da ngay jàkkaarloog moo ñu war li nekk Vaar kay dëgg du ne. ay non sunu waay la. Ah? Sofia sama jigéen sama xarit euh, may nuyu waa 2 di bëggee euh, préparel ma préparel ma kilimu vaar maa ngi ñëw. waaw di nuyu waa di déplacement parce que macha allah yombu ngeen déplacé caméra yi indi ko biir Médina en direct euh, a ma lu dul contentement Sofia moom sama Sofia la. Sofia sama Sofia la parce que nee naa HLM bu ma fa duggee premier mariage bi ma fa njëkk a moom moo ko waral. waaw Papa Ndiaye kenn du yow mag yow dañoo tase Paris nga. am sa nit yu baax yëpp woo ma téléphone yóbbu ma fépp ma fa ay jasneer ma fa cuub ma fa ay euro te loolu yëpp yaa ko def kon sa yàlla na sa jàmm yàgg da nga maa yéene waaw jeeg Amina macha allah macha allah xaw ma ko waaye xam naa ko nii <laughs> waaw ah, ay ay lom ay baax dafa baax non day ñëw day ñëw incha allah jeex na waaw léegi kon kilib bi ñu seeti mhm. ni billet yeeg lépp jeex na mais nu mu demee noonu waa sant yàlla rek macha allah waaw euh, est-ce que du da ngeen di jàkkaarloo VAR seeti ko ñëwaat hawsubillahi rahmani rahim ko ko hamne angi si vurtele ɓe mangale nu sasanta aka surmagi no kalifa dine yeɓe leñi médecine traditionnel lañi def inchallah leñi eh, ñu ngi parcelle aseni unité 10 en eh, face église bi leñi faj mooy problème bot ko am ndoxositi ko am hémorroïde ak ko am faible sexuel problème goor li mu muti première mooy bët ku am cataracte wala sa gis day jafe da ngay fula bëti xasan lu mu muntu mel boo am pour la bët bu dee ñëw nga fii xool naa la dañ la faji nga am li nga bëgg bu dee cataracte bu dee gisul dara bu ñu dëggante ci saas la ñuy faji nga ñibbi sa bopp incha allah wala bët yi ko ko am glaucome début glaucome mu nga gis mën nga ñëw incha allah ñu xool am solution encore deuxième bi mooy ndoxu siti ndoxu siti bari na yaram day xasan di tàng di tayal boo doo da nga ay pëcc yi xasan sa yaram lu mu munti mel bu doon ndoxosité mooy sa feebar boo ñëw day la faj bu kattan yàlla sida day sababu faible sexuelle day jul hémorroïde day jël hémorroïde hémorroïde am na des façons bu trois façons hémorroïde interstitielle am na am na benn hémorroïde day nàcc deret waaye am na benn hémorroïde sa sa suufu day am ay picc am na benn hémorroïde day génne waa ko dugal sa bopp wala boo dem duusi day mitti di la sonnal lu mu munti mel boo am problème constipation wala doo mën a dem douche da ngay toog ay fan doo mën a dem douche da ngay gis boo am loolu da bopp bi métti sa yaram di tayal di la sonnal lu mu munti mel boo am hémorroïde encore dañuy la faji nga wér incha bu sooba yàlla mën lay dem nga xam ne faible sexuel mooy problème góor nga xam ne bari na ci nit gi faible sexuel am na gaaw daanu am na li nga xam ne hémorroïde moo ko joxe am na li nga xam ne ndoxu siti moo ko joxe wante la ma ti mel boo am pour lam góor boo sëy da ngay gaaw daanu da ngay tëdd ak sa jabar mel ni ñaari góor daa ngay defe benn nga du fa ñaara doo ko mun da ngay toog semaine wala un mois doo mun a sëy bu kattan yàlla bu ñu dëggante incha allah dana la yónnee sa garabu fu nga nekk nga am ko nga mun a faju incha allah euh, ñu ngi Parcelles Assainies unité 10 en face église bi wala ko ñu Modou ci kaw tali bi wala numéro yi nekk suuf ak ram yi boo wootee booñ taktal mun neen taktal sa place bi nga mun a ñëw encore li lim ñu wax la mooy ko am cataracte bu dee gisul dara dañ la faj ci saa si nga gis ku am lu sonnal la da ngay am seere wala picc bi nga am si suuf wala boo den duus da ngay am ay toog doo mën a dem duus ci boobaa da am yaram bu métti di tayal pour nga xëy problème la wala da ngay day hémorroïde day génnee nga puus mu dugg dañ la faj incha allah lu mu muntu mel encore euh, siti day yàgg boo jël infection infection da ngay ne si nit ki sa digg tànk yi day xasan yii nii day xasan da ngay wokkatu da ngay wokkatu guddi pour pare boo tëdd pour tëdd nelaw da ngay xasan ba mu yàq sa nelaw bi encore bu waree boo dem douche bu sangu encore mu xasan la bu ba mu yàqu sa sangu bi boo laala si suuf rek da gën a xasan encore mën na ci yokkal encore encore jabet koo am jabet lu mun munti mel bu dee jëlal piqûre bi mun na la traité feebale ndox ndoxosité dana ko joxe hémorroïde mun na ko joxe njeebete bët dana ko joxe comprendre lu mu munti mel ku nga xam ne santir ko sa yaram li la jaaxal bu dee wootee numéro yi bu dee am nañ ci yoon bu soobee la dañu la faj ñu ngi ci Parcelles Assainies unité 10 en face église bi rek gaa boo ñëw parcelle unité église bu nekk unité 11 garde mu taw buntu église boo ko nee Serigne Aïdara ngay laaj ko day faj dana tëttal ak kër gi wala mun ngaa woote ci numéro bi 77 796 68 68 77 796 68 ñaari yoon wala 70 629 31 31 70 629 31 31 voilà bu fu nga nekk ci biir àdduna boo wootee mën na la dëggante ñu yónneel sa traitement incha allah parce que am yeneen pour déplacer ñëw day la sonal. encore bu nekk côté Gambie boo wootee ci biir Gambie am nañ benn place Serekunda incha allah bu ñu déggante mun na boo wootee numéro yi nii mun na di joxe numéro Gambie nga dem place bu nekk foofu incha allah képp nga xam ne ma ngi suivre mu ngi suivre émission bi maa ngi leen di nuyu sant wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi Bamba xam ngeen ni Médine commencé naa yëngu ay waay xale bi la la àndal te kat nekkul ko ñam El Hadj Keita nekk ko sa koñ maire yi yéeg fii xale yi jaar nii jaay ko di café ya jaar wala fuuta yi jaar ko ma su nekk ko ñaawaa coow e eh, jeeg te yomb de lépp di jëm. waa di fàttali ñu toog di seetaan ne ci suñu émission na neex la 2STV doon nii la dafay demee di leen fàttali ne ñoo ngi Medina. Elaj Keita lañ ci seet si mooy waaj guddi gu rëy. 24 décembre daanaka guddi gi Ndiaye tàmbali Sadji tàmbali naa jëmbat dëkk bi yëngu na ah Elaj di la laaj le 24 dégg naa sax bi jeex na ah mais nu noonu. waaw sant yàlla sant yàlla parce que boo amee lii rek doo tiit quoi. waaw sunu yaay sunu ginnaaw. sunu papa yi suñu ginnaaw xale yu ndaw yi ba ci xale yu ndaw yi ñëpp ñu suñu ginnaaw kon maanaam dafa jot rek ñu dem fa moo tax may woote waat tamit xam nga woote du doy may woote waat di woote <laughs> waaw yéen a ma may fit yéen ma yokk fit yéen ñaar parce yaa ma ne boobu ba léegi yaa ngi koy romb naa ko romb. te Ndiaye ah ñu nekk ci li nga xam ne mooy mouvement décembre. 24 décembre. te tey dañu ñëw xam ne mooy Medina ku ne Medina nañ El Hadj Keita dëgg du neex ndax dafa liggéey li tax ñu di ko tuddee El Hadj Keita borom l'enfant chéri de la Medina. mais ñuy waajal li nga xam ne mooy le 24 décembre instant fi ñu toll ni sa date. date bi dafa baax le 24 décembre parce que bu ñu nee 24 24 décembre réveillon la ñuy xalaat fête rawatina nga am fitu jël 24 décembre bi mais ñu bëggoon xam rek euh, sa parcours euh, fi nga jaar artiste beeg yooyu noonu yëpp ba egsi fii en li la gën a motiver à ce que nga jël grand théâtre lan la parce que am na lu ko waral. ok li ma motiver mooy chaque vingt quatre décembre dama doon maye concert. ok ci rue 6 bi. waaw sa koñ. sama koñ ci rue bi macha allah. Euh, mu daan mu daan jéggi dayoo. maire yeeg paa yi ñëppay ñëw. Mm-hmm. ñëppay génn. dafa daan dafa daan tombé sedd xam nga ku xam ni décembre. day tombe sedd. Mm-hmm. mais sama yaay yeeg sama tante yi ñëpp dañuy toog ba mu jeex. te parents saa da jeex ay quatre heures et quelques. mais est ñun xale yi ñun bu ñu ñëwee dinañ am place. parce que Médina mère dañ la dañ la moo tax nag moo tax nag ñun ñu xool moo tax ñun ñu ñu ne ñu ne faw ñu yóbbu ko grand théâtre mm-hmm. parce que il était temps ñu génn. Mm-hmm. wane leneen quoi c'est juste ça moo tax ñu yóbbu ko foofu. Ah, man moom lenn laa lay wax ak sama gars yi fu ngeen doon nar a yóbbu grand théâtre. ah Sofia Ndiaye ma ma may rien oui ma ñu tamit. je te donne rien du tout. <laughs> damay fayu de. yaay damay fayu baara mbay gi de. ma may ma baara ma xayu. da ngaa bokkul ñëpp non fii mooy koñ mu ndaw sama sama yëf la. sa yëf sama yëf léegi ba tey Sofia. Ndiaye képp ku bëgg laa am. hôtel mm-hmm. commercial 2S. numéro bi dina jàll ba pare télé yi nañ bàyyi toppandoo. <laughs> waaw wuy ba ku nekk ak say fee ñun ñoo fee dina neex. Ndiaye waaw xam nga ni yow bàyyi yërëmaate bi yërëm sa yërëmaate gi moom foo ko teg wuy nu bàyyi ak suñu yëf. fi mu toll nii xam nga mënu mënoo copier ba mën a dab li nga xam ne mooy émission na ah, neex mu dëgg ah, <laughs> je te la mais lii premier avant goût grand théâtre la rek te ku ne xam El Hadj Keita xam ko moom wax dëgg yàlla dafa yëngut ci li nga xam ne mooy rythme dafa yëngatu ci musique waaye dafa yëngatu ci li nga xam ne mooy art ba tax na boo ko daan fekk boo ko daan fekk boîte moom ci boppam dalay feccal ba nga kontaan da ngay am envie ñëwaat découvrir li nga xam ne mooy waaram xoolal aca jàmm yàlla yi xam na ni la le 24 moom ci ngay gën a ci gën a wane li nga mën ci fecc ndax daan dóor tey 2S moo wane ni say tànk dafa oyof dafa oyof Mass ah. Mbaye Alaaji Tayiru mooy baayam waaw kii dafa. Ah? ndaanaan la ndaanaan la. maag moom damaa bëgg Ndiaye. da bëgg ngeen xool 2S fi ñu toll nii ñu ngi toog en direct Medina gars yi di seetaan 2S dëgg du neex. xam nga télé bi télé li ma lay wax rek ci équipe dynamique et déterminée une équipe très jeune. xam nga nu ñu def lu rafet lii toog en direct di wane 2S dëgg du neex. yow waxal dëgg rek hélas tey amul faralaate. kan moo fi indi tere en couleur du El Hadj Ndiaye. <laughs> non wax leen dëgg rek na yàlla tax. waaw waaw Ndiaye daan ngeen seetaan ay Dartagna ay Aramis. ay Porto suba la tous. wax leen Dartagna Aramis. Porto suba la tous. ah Dartagna ci leen nu wax war bala. Dartagna Aramis. maa la wax El Hadj Ndiaye mu baax maa ngi moom yàlla yàlla guddal sa fan. fii dëgg neexul ndax dëggantaan a neex. waaye bu sonnee ci tere noir blanc loo mënti sol boo ñëwee ñu noir blanc la waaye tey dañuy wan samay verre Baye Ndiaye Sofia uh-huh. yaa ngi ci biir Medina uh-huh. li Sofi euh, LSK am uh-huh. da ngay woote comme ñëpp ci commercial bi moo xam ne ngay yor boutique moo xam da ngay def événement moo xam yaay sa meeru dëkk moo xam mbër képp ku bëgg a sensibiliser xam nga fi ñu toll nii dañu nekk ci li nga xam ne mooy décembre te bu ñu nee mooy maanaam dañuy tëj li nga xam ne mooy at bi je pense ouverture boutique yi bari restaurant yi nga xam ne mooy yu bees ñu war ubbi bari na da woote justement ci numéro commercial bi ñu ñëw ba seen buntu place defal leen émission en direct de deux heures de temps xam nga loolu dañ leen koy may. numéro commercial bi dina jàll ci suuf waa régie dinañ ko ñu daal euh, ñu nekk Keita mais lan lañ mën a xaar ci spectacle El Hadj Keita jour waaw loolu loolu moom moom laay wax chaque jour dama ci insister sax ak samay musiciens. am na ku ne. benn message bu ñëw. sa frère bu nekk Angleterre ñu koy wax Laye Fall. booy xam nañ ko nee bu soobee yàlla. dina jàpp ci billet yi. dina jàpp ci sañse yi. ndax moom borom sañse yi ci Angleterre Laye Fall. Laye maa ngi koy bëggee borom borom Angleterre sama xarit borom bi benn neuf di la bëggee doomu Medina la moo tax noonu rek la mën a mel. kontaan nañ waaw euh, li ma doon wax Sofia mooy incha allah spectacle dinañ ko gis. Mhm. parce que moo ñu gën a intéressé. lu ñu gën a intéressé sax du ay du ay public beeg mhm. yooyu noonu. c'est li ñu li ñu gën a intéressé mooy spectacle ñu wane suñu bopp mhm. wan musique bu ñuy def. ni maanaam mën nañu ko. te mën nañu yóbbu musique sénégalaise fu sori. lool la ñuy bëgg a wane est-ce que tey mën nañu xaar El Hadj ak identité musique bi muy def mu ci bambara beeg. noo day am lépp day am lépp grand théâtre incha allah dinaa way ba way asiko. Mm-hmm. dinaa wayal ASC yëpp. Mm-hmm. parce que Médina dafa am ASC. yoo xam ne loolu yu bari yoo xam ne dañ may bégee ASC Médina yëpp may bégee. moo tax ma ci woo ASC yëpp. Mm-hmm. ñoom dañ may bégee te dañu bëgg asiko. moo tax faw ma def ci musique asiko boo xam ne cosaan quoi. jeeg bi biir grand lépp lépp dina feeñ incha allah. incha allah jeeg waaw waa leen ñu ngi fii ci Médina. Mhm. koñ bu ndaw ku ne xam mu ndaw su El Hadj Keita di di di joué day mel ni maanaam day mel ni ñoom euh, waa koñ bu ndaw dañuy dañuy sot quoi dañuy sot waaw noonu la demee waaw. maanaam daanaka yow yëngu nga tee. 24 décembre ñëwagul macha allah mu nekk loo xamante ne nii ñuy fàttali tamit ne réew mépp ku bëgg ñu defal la li ñu defal El Hadj mën ngeen woote ci ci numéro commercial mi ngi noonu di jàll ci suuf. ñu fekk la ak foo mënta nekk bu raison boo mënta nekk dañ la fekk saa yow émission na neex nii lay demee saa su nekk léegi El Hadj ñu ngi koy laaj ci 24 décembre bi nan nga nar a def ndax da ngaa wane fii léegi loo xam ne kenn mës koo gis ci muy a am na sant ndax dégg naa lépp jeex na tubaar la paa yeeg maire yi nekk maintenant nañ ko du yow rek mayo ak bis bu mayo da lay gaañ de est bu ñëwee ñun ndax dinañ am place ba lii lay laaj teel a ñëw nga wax waaw a teel a ñëw teel ñëw parce que tamit kuy ñaan yàlla kuy def événement da ñaan yàlla mu réussir nit yi ñëw euh, yàlla rek moo am yàlla moo mën yàlla na ko yàlla def amiin mu ko bëggee te yàlla ni mu ko bëggee rek la koy defee mais dañuy sabablu waaw jaam day sabablu mais incha ku ñëw foofu sa xol di nga di kontaan di nga gis spectacle di nga gis ay way di gis ay fecc di nga gis ay tëgg ndax ñoom Mass Mbaye duñ ma may dara man nit du ma leen may dara Papa Ndiaye du ma may dara du ma ko may dara rien je vais te donner rien arrête dang dang. tu ak Sofia. waaw lenn laa lay wax. dafa am avant pendant et après. waaye nag li ko waral mooy maak Sofia avant lañ la tooñ yëngal la nekk sunu borom wax nañ ci sunu làmmiñ am embarqué ci ngay demee Grand duñu la bàyyi ndax tey ñëwaat nañ ak yow fii deux semaines yi topp nañ la topp fu bëgg ñu dem fa te dëkk rii bu nekk nañ fa dugg may ay biir 2S du la bàyyi day topp waaye damaa bëgg eh, tàccu leen may leen ba 2S dara may leen ba tëggal. sa sama jumeau mais joxal ma ko micro sama jumeau wax mu nar. arbitre bi arbitre bi ngi fi vaar <laughs> Youssou Ndour ak Mbaye Kébé mais mais mais Mbaye. mais <laughs> maa ngi leen nuyu waa 2S bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu ñu fi toog. li ma nar nag dama koy denc. Mm-hmm. ndax man. ku ne xam ne ne ay sabar la am. ko dencul xaaligé te ku ne ci liggéey tëkkkat. xaaligé day liggéeyaat. kooku sama mag la ak Baye Demba. Baye Demba sama nijaay la non Baye Demba du def loolu. wuy ma Ndiaye. Euh. ku ne xam ne sama diggante kii. non yàlla ko dogal bu yàgg petit petit la ba grand grand. man nag li ma nar fee. yàlla dafa def première partie bi sax damay teg sabar. wuy loolu. ak 102 sabar nopp yi ba duñu tëx tamit. 102 sabar. laay man <laughs> am naa 100% 102 sabar ak waa 55 bi yëpp. dëgg la incha allah bu neexee yàlla. ba short bi nga sol ci kilib baar bi. non non arbitre bi mooy ñëw tamit tamit dimbali ñu ci. non boobu mooy ñëwaat. Eh, boobu mooy bi. kon ñu xaar ay surprise yu rëy. surprise yu rëy 102 sabar 102 feccekat. lu mës a am. waaw lu mësul am lu mësul am am garanti incha allah di leen nuyu d'abord di nuyu àdduna di nuyu Sénégal monde entier daal man moom xam naa ne mënewuma sax wax ji waaye hélas xam na xam na li ma koy waajal. ndax boobu ba léegi ñu ngi répétition en tout cas du yomb. ah maa la wax li kon El xam nga ma bëgg man. ndax cent cent deux tama. waaw dolli ci cent deux sabar. man mooy El dolli ak Sofia mais damaa bëgg gars jàppal ma le vingt 24 décembre. bu la El Hadj ba bàyyi la. di nga ci takk nit nga ci nin bat loolu laa bëgg ngeen seen ma booy ñaar rek. juruxu juruxu dama bëgg ngeen pare te xam ne kuy def événement ñun ñoo ko mën affaire bi ngotum avion la contre borom 4-4 bokkuñu ñu ñun dañoo am nañuy def am ay caméra yu bees am ay xale yu bees am ay waa yow ay Njaay Njaay Njaay Njaay war ma kontaan ci la 2STV ah. ah, ndax dëgg lu neex eggaguñu fin d'année ñu dajjil ñu li nga xam ne mooy ay caméra yu bees tey ci bisu El Hadj Keita bi jox ñu ab micro HF yu bees sax dama bëgg nga yóbbu ma ci waar waalo ma bëggee Tata Marème Ndiaye dëgg du neex waaw wuy lu. El Hadj kii doomu benn naa la. waaw. paree faaw mu teew doo tudd nuyool nga wax ak loo nar jour boobu damaa bëgg nga bokk ci première si nu ma tudd waaw salaam gars yi doom doomu Medina maa ngi Abou Blowing je suis un jeune youtubeur ma gën a xam Medina laa am comme El ni ma amee Medina topp ci ay tànkam rek pour lépp bëggal waa Medina di ñaan nag pour Euh, le 24 décembre. waaw nar fa yomb ku ko tardé bu yeboo na na yow na nga pare rek. jënd sa set partage dem waaw tonton Ablaye. ba ca England. waaw dina ko solal. incha allahu rabi te moom moom jàpp ci biir te moom bagage yi moom. yéen a ma gën a xam bokkul ak bagage yi. léegi nag ma jëm mooy. borom mbir mi la ñuy bàyyi gars yi teel ko mu woy lu ko neexee. waaw la si gars yi namm a lool ci yow. dañuy tàggatoo boo jëm El mbay mu si jama ku ma seet noom bay guli faatu ngoone doom boo xamul luñ ko boote may tuddi def ci moom lu ñaaw ñaaw ndax yàlla noppi na def leen nank le 24 ma xewle waaw ah, ah. ma jaaxum gurgun ma se ah, def leen nank ñoo xewle waaw waa koñ bu ndaw man bëgg naa leen waa koñ sama doom la Mas que ele não laaj doog a ñëw ci Sofia doog mooy maanaam daanaka Medina Medina fii waaw mu tàggatoo waale Ba Messi mooy Messi de la Medina day ñëw Pape Abdoulaye Seck day ñëw Youssou Dial day ñëw Paate Ndoy Ba day ñëw Biba Sok akan ala Mam Boy Diawo day ñëw Abu Abu Gueye Chéri Thiané day ñëw dafa nànk essay na pro yi dañuy ñëw Aziz Faye day ñëw pro yi Babacar Mbaye day ñëw pro yi dañuy ñëw Amath Amath Ndiaye day ñëw Fallou Diagne day ñëw Pam day ñëw Diafara Sakho day ñëw déggoo ma de eh Baba Diawara doy ñëw déggoo ma te pare ko ma de Tafa Diallo doy ñëw. pour ñun laa yëpp joueur yëpp ñëw incha allah. maanaam dafa suba ñu ngi fii ci Medina. jeex na ah, suba xale yi Medina yéen ñëpp da ngeen pare ñëw. waaw jël na El Hadj jël sama rakk ah, El Hadj Keita te du leen wàcc. waaw ba 24 décembre. jël ak Medina jël loolu waay. jeeg waaw li may tàggatoo mooy di am contentement bu baax ñu ñëw fii def une ah, di kontaan ci Medina kontaan ci àdduna kontaan képp ku ñu seetaan waaye nag dama. Why you don't see you long time?